Gracias. and how it Amen. maanaam ci barab bu ñuy tuddee Badar lii sababoon loolu nag suñu borom mën digoon yonent bi ne ko di ngeen gëmee yàlla te lekk julli màkka sa alal téye say doom islam jaarale ngeen di daw ndax di fanaan ci àll bi baax na allah dinaa leen yeewu di déglu ndax bu ñu leen lekk waaye koo xam ne dañ jëloon na ay fii saalum dañu ñu lay yor am na ko leen di tàggati ñoom man ci biir xaar yi waaye ñu mën ci xare yi loolu nag también.